mbikum dund gu cher gi sénégalais yi wi bëggoon a xamal doxub ñaxtu ni ki démbu takk der ya fañ leen a jàpp te sax tàmbali ñu woon a doxu ñaxtu te ba léegi seen avocat yi fan lañ leen yóbbu mënuñu leen a teg bët enquête yéen a kaay ñu ko xamal place de la ku fa demoon démb fa ngay foog na geer a xam takk der ya fañ faa fees del ku sëqat ñu napp ku dugg ci oto sax génn goo ñu jàppale sa biir oto ba Guy Marius Sagna ak ñam xàndal noonu lañ leen def ba tax waa ñoo lànk ne fa ñoo lànk ba tëdd ca naaj wa ñaawlu nañ lii ñu def xam lu la naqari dox doxu ñaxtu loolu loi Sénégal yoon moo ko maye sañ-sañ la ci démocratie ba tax ci vox populi ne ñooñu ñu jàpp nag seen wér-gi-yaram biñ leen di jàpp feebaruñ dara dalul leen na ko kilifa xam nag 24 heures yéen kaay ne mbaadu Sénégal suñu réew mi ab état wayu moo fi xam ndax lii fa ñaaw source a yéen a kaay ne ñoo lànk fa ñoo mer ba futtu naqarlu li ñu def démb 24 heures yéen a kaay ne moo taxi tubaab yi mbootaay réewu Europe yi ñu ngi wax ak gouvernement bu Sénégal Macky Sall ak ñum xàndal ñu xoolaat ñi moo xam wàllu suuf ay mbir yu doy ba tey mbootaay réewu Europe yi ak partenaires yi ña ngay dicté seen loi Sénégal a yow seetal fa ñoo wax Macky Sall na ko far force fra force doole mbaam rapport yi nga xam ne Cour des comptes fa koy def ak ARMP ci ay kilifa yoo xam ne fa ñoo yore ndombu tànk ci réew mi di sàcc xaalisu askan wi di labaj ñu épingle leen rapport yooyu nañ koy joxe te wàllu suuf niñ ko yore Sénégal fa ñoo bëgg yëf yi jaar yoon te leer 24 heures yéen a kaay na suñ réew mi daal fa mel ni rek fa bëgg a jëkk taxaw rek xëy dox ay mbir yu garaaw moo fi xam jamono jii yow seetal assemblée nationale la fa xam fi mu toll ni gàcce la mbiru Seydina Fall Bougazeli di député bi nga xam ne moom lañ jàppee woon foo biyee te sénégalais yu bëri fa ñoo ne fa gëm ne Bougazeli ni yoon doxalee ci ay mbiram wuute na ak niñ doxalee ci diggante kilifa ak Simon procureur Ousmane Camara waxoon na si jamono ne justice wàllug yoon du trompé wu de du juum waaye fañ koy juumloo maanaam fañ koy trompé loo maanaam def leen lii ñu def mooy waral du tëddee njaaxaanaay waaye Macky fa war a jóg taxaw ngir yenn yi am ci mi ci jalgati wàllug suuf mbiru xaalis jaay doole mbirum drogue jigéen ak yu garaaw yoo xam ne mi ngi xam na fexe li solo yéen a kaay na ko xam nga Macky lan la bëgg mu jógee fi wàllu ger ci réew mi yaaw seetal ci xam ndaje mu doon of naag doon xamal gannaaw bu mu rafetloo seen liggéey moom Macky nee xeexum ger ñëpp ci war a dugal seen loxo vox populi na Macky bëggut a gis ger Sénégal ndax lu bon la baax le quotidien mel ni ku naan ko Macky bu dee ngay xeex ger am na ko farak yow député ba woon Bougazeli démb am na ab vidéo bu ñu wane mooy biñ koy teg loxo kàddu yam fa wax ci ger mu jeex wax leen ma ñu def ba gérer affaire bi buñ demee brigade du baax nañ ko gérer fa te député bi Bougazeli bi ko gendarme yi tege loxo ci biir oto bi tiit jàq caalig yu métti la fa def yooxu na jooy na foo toll di dégg wooy yaay yàqu na ay waay yàqu naa waay waay yàqu naa garant nañ ko géré buñ dem brigade ay waay ay waay waay waay yàqu naa waay yéene kaay bi ne vidéo bi fi mu toll nii nag mooy buzz mi ngi fees del ci internet bi sénégalais yëpp presque seetaan nañ ko loxo ci poos la lu kenn mën tawit di fa leer nañ ñi moom Bougazelli nag nee na fay porter plainte sandarma bi nga xam ne moo ko filmé les échos yéene kaay na ko nee na Abdou Aziz Mbaye la sandarma source a yéene na ko hée defal ndànk de sandarma ci tuumal vidéo boobu biñ la tegee loxo ba filmer ko ba enquête ba jeexee fañ ko dugal ca biir dossier ba ñoom booba lañ ca pare léegi lan moo ko génnee ak fu jaar kooku ñoom neneen seen yoon nekku ci yëguñ tinuñ 24 heures ne foogu leen na daal fa ñoo xam ne ni réew mi doxee ci wàllu yoon kumba am nday kumba amul nday gi ba ci niñ def kilifa bi nga xam ne problème ba moo xaritam la xaritam ba porté wut ko plainte ñu fexe ba taqal ko ay tuuma tëj ko boo demee loolu nag moo métti ñenn ñi ñu wane ne am na ku def a garaaw li kilifa def a a def dañ la kaso direct news na ko ko fa mel ni li nga waxee dëgg de ndax mbiru passeport diplomatique yi ñu tudd ñaari député assemblée nationale xam nga ba léegi kenn oowut leen summiwuñ seen malaanu kiiraay waxuma laak dégloo ko tëj kaso jamono ji may wax ak yéen am na ay kilifa yuy def lépp luñ mën ngir affaire bi ñu teg ko ci suuf mu sedd kenn dootu ci wax dara waaye yéene kaay bi ne yëf yi ndekk gën naa garaaw am na benn député boo xam ne ci vice président yu assemblée yegg ca naan mooy njiitëram Macky Sall moom xamaat yeneen problème yu ko doy muy wàllu élection locale yi parti nga xam ne ñoo koy jàppale allié yi PS AFP ak yeneen parti nee nañ foo xam ne seen maire ya ñoo fa nekkoon gagné élection yi passé nañ fa bàyyiwaat seen maire ya bu kenn soppi ñu ne déetewaay am na ay diiwaan yoo xam ne APR ya ñooy xeex ak APR ku nekk naan faa bëgg nekk maire Macky am na problème de nu muy tànnee ak ñan lay jiite ci liste garaaw de ca lam waxoon nee ANSD li ñu wax ay dëgg xibaar yu wér la juróom benn million ñoo fi ndóol ñàkk info yéene kaay na ko am na beneen ministre bu deltu ginnaaw ca lam waxoon mooy Abdoulaye Diouf Sarr xam nga fafee waxoon ne balaa école tijji jàngalekat yépp fañ leen di ñàkk ci corona bi nee maa waxoon waxat génn naa ca ndax mënta nekk ñàkk corona bi kenn waru cee force nit tey nga ñàkku amul fen syndicaliste jàngalekat yi na ko moo gën ci yow a jàngale critique yéene kaay ba Touba mag niveau 3 yéene kaay bi na Macky nag fa bëgg a xett boobaale yéene kaay bi ne waaye fa xam sens xalifa général des mourides moo santaane ne bu ko gaay yi waaye ni konoon Macky tey ci samedi ji danañ ko yuuxoo Touba ba mu daw génn ndax askan wa fa ñoo doyal ca moom 24 heures yéene kaay moom di ñu xamal mbir mu garaaw xab xale lu góor la ñu fekk mu faatu ba bopp ba tàqali ko yaram wa allah yëf yaa nga xamee ca Mermoz enquête yéene ka na ko doomu chef de quartier ba moo reen di fa xet xaritam ndaw xay fanaan fu xaw xay xam mooy diiwaanu Louga dëkk bu ñuy wax Jeylaani yaaw seetal yàlla ji doon taw daal ci la dënn bi daanoo ca seen néeg ba ñeenti xale faatu ca ñàkk seen bakkan ñett ña ay taalibe leen vox populi moo ñu ko xamal libération moom dañu xamal ne benn xale bu jigéen daal fa xam far bëgg ko lool léegi nag fay fiir a far wa mu jàpp ne far yu fa xam baneen gel xam nga nu xale bu jigéen ba def fa baxal ndox ba muy sëtatati tàng jir rek mu fekk far wa toog mu sotti ko ko soode ko ko ba ginnaaw ga yëpp a yàqu xolleeku allah moom xale bu jigéen ba nag takk dere teg nañ ko loxo far waa ngi ca diggante dund ak dee waa ma ne du jàkk du église far rek ma lay fiire ba di la soode léegi bu ñu la tëjee kaso sa faroo moom xalaatul laa takk su fekkee deewut kay te xale bu góor bu ko dégg du la takk fekk ñu tëj la kaso su boobaa nag xay xenu la li ngay ñàkk fayda